Mor Lamine Ngom a ngi nii ndaanaana Lamine Ngom nga ne da nga am loo métti lan moo la métti. waaw tey nag bu ma ñëwee faaf ëpp ñëw nag si wàllu Sidi Diop ma wax Baye Sarr doo ma dugal si biir yaa mu dégg. Baye Sarr nga yàq nii. parce que Seydina ma xam man Baye Sarr ñëw boroma benn grand grand ñëw wàcc ma si suuf loolu nag àq la yaa mu dégg. eh loolu ñaaw na. Baye Sarr nag xam nga dama xaa bett dama xaa dama xaa repêché. da nga ko bett waaw bett na ma dëgg yàlla nag dama xaa repêché. ko rapacer waaw xam na nag. waaye man benn man dëgg yàlla mën naa benn artiste nga sax waroo dem fenn ñu lay man naanaan laa ba pare waa Sénégal yëpp ma xam man am ma kër mi Sidi Diop yaa ngi muy dëgg man nag Bazan nag tooñ na ma bett na maa ngi nii du mais Bazan li mu def ñaaw na yaa ngi muy dëgg ma ñëw taxaw ma Bazan grand Bazan du ma dugal si biir yaa ngi muy dëgg Bazan ñëw na grand wax kii sama karam xam na xam na li xam na lii métti na ma Bazan du yoon du man la laa def non day wax quoi mu baax. waaw léegi yow xam nga yow yaa ngi ci site Leuz TV bi waxal waa Leuz TV ñi dimbale la ci loolu parce que yow artiste nga. waratoo dem fenn ñi lay téye ci buntu yi loolu du yoon. noon loolu dëgg la xam na loolu moom bu yoon. ak la quoi man dëgg yàlla na léegi lan ngay wax waxal waa Leuz TV nañ la dimbali ci lool parce que yow artiste nga. waaw waa Leuz TV. waaw waaw waa Leuz TV. waa waaw waaw bëgg waaw maa bëgg man daal maa bëgg waa tere bi ñu wax ñu wax ko si ñu ma wax sama dëgg. xam na lii xam na lii métti na lool yoon man nag sama xol bi Sidy Diop moo ko moom yaa mu dëgg man benn waay kese kese laa fa am Sidy xam nga mënu wërëm woon wërëm woon ñëw si soirée bazar bazar du ma téye loolu àq la du yoon yaa mooy bazar man la laa man la def day wax day wax man la laa ko def dégg nga la laa ko def bul jooy waay Lamine bul jooy moor nee naa la fii rek lay xëy à Leuz TV bi base yow looy jooy nag yow tam artiste bul jooy nag <laughs>